nga xam ne mooy direction de la pharmacie nationale d'approvisionnement di moo délivré bon de livraison bi nañ waxtaane tam ci biir xibaar yi butéelu gaz bu fukk ak ñaari kilo bi nga xam ne kenn gisu ko ci marché bi direction bu commerce intérieur daal di koy dëggal wax ni lu nu mel nag li ko indi mooy yàq gi nga xam ne nemmeeku woon nañ ko ci station de Total yi maanaam bi ñuy ñaxtu ci biir réew mi loolee lañu ko daal di jiiñ ci jamono jooju SAES moom tey lay daal di matal ñetti fanu yoo xam ne da ko rek Sénégal bi enseignant su du supérieur yi fekk ni wax ne daal dinañu rafetlu bu baax a baax ni nga xam ne jëfe nañu ko ci ñetti fanu grève yooyee li ñu ci doon xaar gis nañu ko bu nu noppee dana ñu waxtaane aslëf ci biti réew waaye itam tàggat yaram daal di jeexale yéenikaay li ñu xëy fésal ñu daal di koy ndar képpe xibaar yi ñu teewlu li nga xam ne mooy faram fàcce gi Cheikh Anta Gueye moo nekk ci machine bi na fal ci kàddu gi dal leen jàmm mbokk yi ñu daal di koy doore li nga xam ne duut nañu baaraamu tuuma pharmacien yi ci li nga xam ne wax nañu ne ay médicament la ju jaarul yoon ñu dugal ko ci biir marché bi douane bu Sénégal daal di euh, leeral li nga xam ne moo jëm ci wàllu wu ni mel bu nu sukkandikoo rek ci lieutenant colonel Abdoulaye Thioy mu ni du ay médicament waaye ay dispositif yoo xam ne consommables la lañu ko daal di dippee yamul foofu mu ni rôlu administration douanière mooy fexe ba rek gunge ministère de la santé ci rek saytu médicaments yi waaye tam mi ngi leeral ba tey ci wàllu wu ni mel importation boobu daal nañ koy euh, dédouane def nañ ci dédouanement ci base autorisation boo xam ne direction bu pharmacie nationale d'approvisionnement moo ko daal di joxe. buteelu gaz bu fukk ak ñaari kilo bi kenn gisu ko fenn ci biir ndakaaru dafa manqué maanaam ci noone ca mbuur tam loolee la ñu daal di nemmeeku ba tax na askan wa ña ngay dund ay jafe-jafe ci euh, jamono ji ñuy wooree mu di rek euh, foo xam ne ñi ngi fay laajte lu ni mel lu bari te kenn gisu ko kon maanaam dafa manqué ci gox boobee tamit comme ni mu ko defee ci biir ndakaaru Alioune Badara Sonko ñoo ngi fii ci quartier 44 dépôt de gaz bii ngeen gis nii nag fii nag waa koñ bi ci lu ëpp fii la ñuy jëndee gaz waaye nag xibaar bi nga xamante ne jamono jii mooy circulé ni gaz 12 kilo bi dafa manqué borom dépôt bi di ko déggal. fan yi moom manqué waa bi moom jege na dayoo moom moom day ñëw daal du doy di ñëw tamit presque moom eh, day gaaw a demaat léegi mais li gën nekk suñu jafe-jafe daal mooy. problème problème douze creux yi discours yi daal ku ne mënuñu ci am lu doy. dëkk bi presque lépp a manqué de bi xanaa dafa gën a feeñ rek gaz li li tax mu manqué sax ñun comprendre ñu parfois da ngay wër ba sonn surtout gaz bu la. nag ab chauffeur la moom fii lay liggéey ci dépôt bi moom mu ñuy expliquer li ñu xam ne ni gaz douze kilos bi boo gisee mu manqué liggéeykat yi bari daan liggéey ci usine bi dañ leen a wàññi ndax corona bi moo tax jamono jii gaz douze kilo bi pour nga teg ko gët problème la. ci usine ba nga amee problème parce que ambulaay la ñu wàññoon comprendre instant problème ambulaay la am moo tax liggéey bi sooge bu te yaa ngi fa demee ñu ko liggéey pour ñu sarde ko mooy seen problème moo gaz bu ndaw bi yëpp. ak ci weeru koor gi ñu nekk nii gaz bu fukki kilo beeg ñaar jamono ji pour nga teg ko gët sax problème bu rëy la moo tax ñu bëri ci askan wi gannaaw amuñu gaz dellu nañ ci jàllu këriñ ya Aliou Mbaraxa Sonko moo doon jokkoo ak yéen depuis Mbour pour FM. jërëjëf Aline Badara Sonko waxtaane leneen ci biir xibaar yi moo di SAES bi nga xam ne tey la matal ñetti fan yoo xam ne dafa banque loxoom ñi nga xamante ni si ñoo nekk ci enseignement supérieur bi ni mbir yi jaar na yoon waaye li ñu rek ñaawlu mooy tekki tekkaaral ak noppi gi jëwriñ gi ñu dénk waaru enseignement supérieur ak recherche et de l'innovation ba tax na ñoom bu weesoo dakkal jàngale mi syndicat autonome bu enseignement supérieur ne dañoo rek woote tam ngir ñu dakkal soutenance de mémoire yi waaye itam délibération yi ci diirub sant douze heures Malick Da Fall mooy secrétaire général bu SAES e ñu teewlu ko ci. dëgg la bouteille gaz de douze kilos bi depuis quelques jours quand même jafe naa gis li ko waral nag d' abord mooy conséquence événement yi fi amoon parce que dañoo dajji saccagé ay station service yu bëri. biir université yëpp fu ci nekk lañ fa war a def def nañ ko la ca ñoo ñoo ñu def lu dul di leen gërëm di leen sargal et puis di leen wax ni ku gën a dolli defaraat taxawaay fekkee ni li ñu soxla amuñu ko incha allah rabbi foog ñu ñu ko waxee ñun defuñu woon grève dañu defoon grève maanaam defuñu woon grève boo xam ne dañ koy renouveler benn grève boo soixante douze heures non renouvelable pour attirer attention euh, autorités yi maintenant état bi ci tegu mooy bu ñu fi jegee incha allah rabbi dañuy déposer préavis grève maintenant préavis bi nag buñ ko déposer bu boobaa moom bu préavis bi jeexee ah loolu moom dañuy delluwaat euh, suñu man ca université moom ak euh, daje am na fa ci diggante recteur bi directeur du COUD ak ñi fa teewal ndongo yi ñoom nag euh, gannaaw ba nga xam ne ni conseil euh, d'administration bu centre des œuvres universitaires wax na ni amul ci ay compétence am ngir mu jël dogalu daal di tëj campus social bi ci recommandation bu conseil de discipline bu université ci ab bataaxal bu nu rek fësal naka démb ci ngoon ñetti ñooñu daje ñëpp wax nañu dañoo bëgg taxawal benn mbir mboo xam ne plateforme numérique lay doon ngir lu jëm ci wàllu codification yi ndongo yi tamit euh, am nañ ay ay engagement yoo xam ne jël nañu ko ca ñuy dajee ngir waxtaan ñu mën a bëgg rek euh, jàppale kuddu ngir ñu mën a ràññee waaye tam daq euh, nit yi nga xam ne ñoo yor statut ndongo ci UCAD te jàngeetuñ fa ak lépp li nga xam ne rek jëm na ci wàllu violence mën a nasaxal seenu nekkin foofe waaye itam processus au renouvellement bureau amical yi ñu di ko amal ci jàmm kon ci wàll wu ni mel recteur bi moom bëgg rek ñu amal ci kanamu conseil de discipline bi lever suspension amical yi waaye itam daal di wéyal processus de renouvellement yi yu amical yooyee ca université bu nekk ci tournée d'installation section de base ak bureau exécutif régional yi Habib Aydara nekk secrétaire général national bu Sutelec mu daal di ñaawlu li nga xam ne impliqué wu ñu agent yi ci réforme yi ñu engagé foofee ci Senelec mu daal di ci dolli ne dafa rek nemmeeku ci wàllu management bi dafa am fu sooxe ci jamono ji li jëm ci wàllu recrutement yi ci wàllu politique képp lañu koy lal yooyu ay kàddoom la moom mu jàpp ni day loole day nasaxal lu jëm ci wàllu ressource entreprise bi Habib Aïdara mooy secrétaire général national bu Sutelec Babacar Niang la dénk yile kàddu ngi defar ay centrale ci biir Sénélec mais kenn boole wu ñu si te ñun on est des acteurs donc ñun dañu war nekk dans le processus moo tax tey ji ñu ne il va falloir qu'on aille construire un rapport de force pour que ëllëg ak si biir bu gouvernement bi wala ministère wala Sénélec wala dem ci loo xam ne du avantage yu yi du avantage yu liggéeykat yi du avantage yu consommateurs yi que ñun ñu mën a taxaw en bouclier looloo tax ñu ne dañuy def une tournée de sensibilisation ñu xam fan lañ jëm ëllëg foofu ñu jëm dañ koy war a bokk ñu boole installé les sous-sections installer le bureau exécutif régional tey pour que ñu am taxawaay boo xam ne ëllëg ak si biir lépp lu ñu war a décider ci kër gi dañ ko def nañ délégation nord on va aller dans le sud on va aller dans le centre est on va aller euh, dans le centre ouest on va aussi aller à pour ñu xamal liggéeykat yi ci lan la ñu jëm te loolu ñu jëm lan moo ci war nekk suñu taxawaay. kon Habib Aïdara moo doon àddu ci micro ñu wax a door lu jëm ci yëngu-yëngute Fonds national de la microfinance FONAFIM benn at gannaaw ba nu ko daal di taxawale ci juin 2020 la woon ci décret présidentiel bi la institution wala servir assistance technique ak appui financier ci yeneen institution microfinance yi nga xam ne ñu ngi doxal am benn budget bu toll ci trente milliards ay requête nag envoyé nañ ko institution bancaire yi ngir ñu amal disposition ressources yi assurance boo xam ne ministre bi ñu dénk wàllu microfinance ak économie sociale ak solidaire moo di Zahra Iyane Dia moo ko dénk Cheikh Ahmed Tidiane Seck. jàpp ne bu requête yooyu anto fond bi dina am trente milliards pour mën a tàmbali waaye comme ni ma ko waxee léegi projection la li ëpp solo mooy taxawaay bi nga xam ne war nañ ko am ci liggéey bi ñu sas ñu def ko jàpp naa ne muy président conseil d'orientation bu Ismaël Dembélé directeur général fond bi aussi monsieur bu jàggee ñoom ñëpp danañu àndandoor ak membre conseil bi taxaw ndax euh, xarañte bi ak capacité yi am nañ ko kon li ci des mooy ñun ministère aussi ñu jàppale leen gunge leen xibaaru bitim réew xibaaru bi yi dañ koy dooree ca conseil de sécurité bu ONU bi approuvé nag démb ci rek aljuma ji ci ñoom ñëpp ñaari résolution yoo xam ne dafa rek concerné Libye bu ci njëkk mooy lu jëm ci wàllu progrès libyen yi en faveur de la paix ak sécurité foofee ca Libye gannaaw ba nga xamee ne wax nañu cessé nañ la fa ci octobre bi la ñu génn beneen bi nag war a daak porté wu ci renouvellement ci euh, mi euh, ba mi 2022 ci mandat expert ONU chargé war a contrôler embargo ci armes régime bu sanction bi war a rek viser exportation illicite pétrole foofee ca Libye ca Russie moom démb ba tey daal dinañuy dévoiler réplique ca nouvelle sanction américaine yi ñu war a ànd ci loole expulsion diplomate yi ak tam tere di haut responsable ñu war a dugg ci seen biir réew ñu daal di ubbi nag idée bu sommet ci diggante Vladimir Poutine ak Joe Biden mu di opposition bu positive premier secrétaire bu parti communiste cubain Raúl Castro waa nday woote naka démb tam benn dialogue bu ñu lal ci respect entre Cuba ak États-Unis waaye bu ñu renoncé ci socialisme bi mu dénoncé nag guerre économique bi ñuy mëne ci contre l'île muy confirmer que nii rek progrès du parti bu mooy euh, volonté mooy fexe ba nouer benn dialogue respectueux ci nouvelle forme de relation maanaam euh, ci li seex ci seen diggante ak États-Unis la euh, tabuñu ci rek fexe c'est un principe résolution ak socialisme yi mu déclaré ko ci ab euh, discours congrès parti communiste bi marqué départ am ci wàllu retraite ñu ubbi beneen xët tàggat yaram lay doon. Actu tàggat yaram dañu koy doore ak li nga xam ne moo jëm ci assemblée générale bu fédération sénégalaise de football ñu ne maître Augustin Senghor dafa teg gëtt ñeenteelu mandaam ñu bari ànduñu ci wàllu wu ni mel mu di rek ak ndogal goo xam ne dafa rek bett monde football bi ba tax na ñu bari ci askan bi jëm ci yëngatu ci wàll football waaye di ci yëy di yàbbi jàpp nañu ne loolee xaaruñu ko woon ci moom njàngatu président la liggéey. bu dee yoon dàqul benn yoon moom Augustin Senghor mu nekk candidat candidature boobu mën nañ ne dafa illégitime victime ñu ngi fàttaliku ñu ñëpp coow lu bari li toppoon ñetteelu mandaawam mandat bu mu defoon moom dernier mandaawam pour yeggali ay projet am jamono ju jafe pour moom ak kan bi ñu jógee te Sénégal daan woon ci quart de yi mu amoon tamit ay candidat yu mag Louis Lamotte nekkoon jiit bu njëkk bu ligue professionnelle bi wala bokk mbay Diouf ja mi nga xam ne nekkoon na vice président am finalement Augustin li ko ci génne mooy soutien bu Sayer Seck mi nekkoon premier vice président bu fédération moom personnel pour accompagner ko tey jii moo tax da doon xaar Augustin fay naar bi xoromam rawatina nag ci contexte boo xamee ne moom Augustin nekk na premier vice président bu CAF waaye nag ñeenteelu candidature am bii mu samp moom Augustin Senghor jël na risque boo xam ne amul sax njëriñ ndax nag mënul indi lenn lu dul yàq footballu Sénégal li wóor te am mooy Sayer Seck bu dëggalee boppam ànd ceeg Abdoulaye Sow li ñu bëgg moom mooy am mu des nag ñu yaakaar dong ne Augustin bu ëpp la ndax nag kenn naataablewul ne moom premier vice président bu kaaf bu amee defet ci biir dëkkam dana nekk lu doy waar. président Lamine Gueye euh, jërëjëf waxtaanee football ci biir réew mi session de rattrapage maanaam ay match retard nañ ko jongante diggante rek tënkee ci mooy dalal ay Douanes loolee nag première place bi moo nekk en jeu. Euh, ci ba tey Jaraaf de Dakar di war a ak Stade de Mbour jongante yooyu ñu ko jàpp. bu 17h jotee ca benn bi ca Ngalandu Diouf lay amee fa Tëngéej ji dalalee douane waaye jaraaf moom ca Stade du Barry lay dalalee Stade de Mbour. waxtaani wàllu basketball coupe du maire ci wàllu jigéen ñi ci wàllu programme tey jile ci samedi bi kon 12h bopp ak ISEG sport wax nañu ci daje 15h ak Duc ñoo ci war a laale 12h ëllëg Fly Star ak ville de Dakar ëllëg ba tey 13h30 Jaraaf ak Asfo loolee ci wàllu jigéen ñi la. bu nekkee ne ci wàllu góor ñi tey moom ba tey 13h30 euh, saltige ak uso ville de Dakar ak douane 16 h lay doon ëllëg ci dimanche bi 15h HLM basket club ak Mermoz 16h30 Gia ak Duc kon war nañu ci rek daje ñu mën a jàpp ba tey ci samedi bi 17h30 US Rail ak Sibac ñoo ci laale waaye ca Ziguinchor Asuk ak Tamba Sport wax nañu ci rek daje. di fàttali tey huitième de finale ci wàllu jigéen ñi 14h30 US EPT ak Saint-Louis basket la wax nañu ne wax nañoo laale ci bile jongante. ñu tàbbi ci wàllu athlétisme laata ñuy dem bi ci réew waxtaanes lëf ci tàggat yaram foofu ci wàllu football tey jilee Ligue de Dakar naka ëllëg kon ci dimanche bi dina amal fukk ak ñetteelu bëccëgam waaye bile dañ ko rek jox tout tànk yi ngir ñu waajal euh, bu baax a baax li nga xam ne euh, moo jëm ci championnat régionaux jeunes yi kon Ligue de Dakar ñoom la daal di euh, jagleel bëccëg bi benjamin yi minim yi ak kade yi dinañu ko door 8h45 foofu ci stade Léopold Sédar Senghor foofee ñuy amale compétition yi jëm ci wàllu athlétisme ci réew la ñuy wutali waxtaanee ci wàllu championnat yi waaye fu fee moom ca Angleterre ñoom demi-finale këpp la ñuy daal di war a jongante tey jile kon 16h30 Chelsea ak Man ci dinañu ci daje demain 17h30 ñi di Leicester ak Southampton kon wax nañu cee laale ca Turquie fanweer ak juróomeelu bëccëg bi ci la ñuy toll tey door nañ ko naka démb dinañu ko wéyal tey ak ëllëg ci dimanche bi ba tey ca Angleterre tam seen 32e journée dinañu rek wéyal seen i jongante xamante tey jile lay uh, doon ñu mën ci rek uh, daal di koy uh, doxal nag ba altine ñu man ko rek euh, wéyal foofee ci rek France 33e journée ci lañ tollu door nañ ko démb Lille Montpellier benn ak benn la ñu def tey jii dinañu ko wéyal laata ñu koy àggale naka ëllëg ci euh, dimanche bi série A bi moom ci fanweer ak benn lu bëccëg bi la ñu toll ñoom itam tey lañu koy rekk door waaye Naples bu Koulibaly ak Inter ñoom ëllëg ci dimanche bi bu 18h45 jotee la ñuy jongante ca Bundesliga bi ci 29e journée. ñoom ci la ñuy toll foofee ca Espagne 33e journée la ñu daal di euh, toll ñoom itam nañ ko door ëllëg bi ci rek euh, dimanche bi lu jëm ci seen euh, bëccëg boobee. Euh, ñu leen di euh, fàttali li gënoon fes ci xibaar yi lii leen di tàggat yaram moo ndar képp xibaaru euh, juróom-ñeenti waxtu yi bokk na ci li ñu waxtaanee ci biir xibaar yi mooy médicament yi ñu ne dugal nañ ko ci biir marché bi douane bu Sénégal daal di setal boppam indi ci ay leeral jàpp ni lu ñu mel ay matériel médical la muy accusé direction bu pharmacie nationale d'approvisionnement mi joxe rek bon de livraison bi waaye itam waxtaanee nañ ci biir xibaar yi gaz bi manqué toll ci fukk ci ak ñaar ci Ndakaaru ci Mbuur yëpp nemmeeku la ñu daal di amal jëm ci wàllu woowee noppi nañu waxtaanee jëm ci biti réew laataa ñu koy jeexale ak tàggat yaram ñu bàyyi leen ngeen wéy ci rek programme 89.7 la rajo leader di jaajëfal Chante Gueye mi nekkoon ci machine bi waaye Safiatou Ba Ndiaye mi jàpp ci réalisation.